alaikum. mbokk Sénégal plateforme avenir Sénégal bi nous bëgg mooy wéy di liggéeyal askan bi voulons parler ñu bëggoon waxtaan ci mbir mi di élection présidentielle qui war a jëm 24 février 2019 Nous wara dem nous bëgg tabb suñu eh, président de la république est anam bu ku bëgg bokk ca wote ba dem wote ji ak jàmm ak salaam ñibbi sa kër ak jàmm ak salaam dafa laaj d'abord nga yore sa carte électeur boo yore woo sa carte électeur nga denc ko làq ko fu yàq yeggul ci jamono yi ñu nekk Sénégal ñi amul seen carte ñu war a jug teel a jug dem seeti ko léegi nag ñu bëggoon ngeen bàyyi xel ci ñaari mbir ñi nga xam ne gisuñu seen carte électeur dem nañu fañ ko daan taamu di seeti te gisuñu ko ak ñi yore tamit seen carte électeur di bëgg a xam ndegam la ca nekk wér na maanaam bureau de vote ba ak centre de vote bañ ca bind méngoo na ak li nekk ci fichier électoral bi nekk ci ministère de l'intérieur ñaari mbir yooyu ku leen bëgg a seet léeg nan rek ngay def mën nga jëm ci numéro vert bi ministère de l'intérieur jagal askan bi muy 800 00 2017 mba nga jëfandikoo xarala yu bees yi maanaam téléphone yi am internet wala sa ordinateur su ko defee nga dem ci ministère de l'intérieur adresse bi mu di https 2. slash slash avec s sec sec point gouv point sn slash carte tiré CEDEAO boo fa demee dinga am information yu mët yoo xam ne digg na la wér ne lii ñu bind ci sa carte électeur lii mooy lii dëgg ba bésu wote ba doo nekk di wër di sa centre de vote di wër sa bureau de vote ba jaaxle ba mu gi sax nga xàddi ñibbi te doo mën a wote loolu mooy wéral élection yi di ñëw su ko defee ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin président bi ñu tabb mu nekk tabb bu wér tabb bu xam ne du am xaj seel yëf yëpp jaar ci yoon loolu la plateforme avenir Sénégal indi bëgg askan bi bàyyi ci xel teel a jug ba nga xam ne lépp jaar ci yoon ba benn coow du jip wasalaam